la bu ñu waxee corruption nañu wax ba xam ndax loolu dëgg la du loolu bu dee ñooñu ñuy wax jaral na leen seen carrière jaral na leen ñu dem ba à à à à deux pas de la retraite ñu ñu salfaañi ko pour des histoires de de de de mallette d'argent loolu ñoom la justice sera là pour juger mais quoi qu'il en soit ça n'honore pas la démocratie du pays ça n'honore pas ça n'honore pas l'état républicain boo xam ne moom la ñu am et c'est c'est c'est moche de la part de de de de de waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi soutenir initiative bu mel noonu parce que mm-hmm. euh, li ñu leen di wax rek la ñuy dëggal c'est-à-dire ils ont choisi un candidat muy Amadou Ba ba pare tey jii ils font tout pour que euh, kooku di fragiliser wu parce que y de ces décisions impopulaires yoo xam ne wala des postures impopulaires yoo xam ne boo ko amee nit ñi seen bopp ñoom ñooy mujj di di di di di retrouver wu contre yow te loolu ça ne honneur au président de la République ça ne fait pas honneur à Macky Sall qu'on arrive à stade là boo xam ne i il s'apprête à partir ñu koy indi ci ay ay détails yu mel noonu ay crise institutionnelle yoo xam ne vraiment ça n'honore pas le pays et c'est très dommage. lan lan ngay répondre ci Kajoor interpellation bi mu waaw ci interpellation Kajoor bi lim mu ciy répondre mooy que vraiment. du rek simplement ces attaques au subjectif attaques yi ñuy def wala defendre bi ñuy bindi recours parlementaire mais c'est-à-dire que ñoom ñi ngay wax ni dem ñu bari dem nañ ci retraite au niveau du conseil constitutionnel dañuy exercer parce que foog ñu xam tamit ñooñu ci lan la ñu féetewoo te parti démocratique sénégalais je pense que borom. mais dem retraite du ñu loolu. waaw ah, euh, waaw waaw d'accord il a a soulever loolu. mais parti démocratique sénégalais defe naa ki ko sañc moo njëkk jàngale droit ci université de Dakar professeur Abdoulaye Wade ñëpp xam nañu depuis 1966 premier doyen de la faculté de droit te dañuy ñëw ci man panne bi may gën a taxawaay mooy taxawaayu constitution bi ak maanaam li ñu tranché indi décision ci rétroactivité wu loi yi ak dépôt yi di perte de candidature boobu ñoom ni ñu ko indee ci seen considérant yi au niveau des réponses yooyu tamit moo ñu dérangé te dafa am li nga xam ni mooy li ngay wax noonu ñëpp dañuy jàpp ni ci wàllum ger gi kese la ñuy wax mais ñin ñi dem nañu lu mel ni Mayoro Faye au niveau du parti dem na ba seeti ak d'autres qui ont eu ñoom Ousmane Kane euh, ñoom Silla qui ont yu à déposer des recours au niveau pour euh, du conseil constitutionnel ñu rejeté ko ñoom ñëpp dem nañ ñu toog waxtaan ak le président de la république pour que vraiment ñu mën a delloo si waat taxawaay bi ak xam ni am na des candidats yoo xam ni ñu ngi fi am double nationalité te génne pourtant ñu ngi continuer seen i recours parce que amul kenn ku def réclamer ci seen kaw mais le candidat de Karim Abdou Karim Meïssa Wade mhm. je pense que mën nañu toog waxtu bii nga xam ne tey kii soulever le débat tey en 2016 ki ko soulever c'est madame Aminata Touré te tey jii gis nga position bi mu taxaw est-ce que gis nga position te pourtant Laay Wade du 5 mai def na ci benn lettre de réponse bu ñu koy adressé woon à l'époque elle était premier ministre ne Karim Wade de je pense que la binationalité de Karim Wade boobu noonu moom tànnul nekk français juddul nekk tànn nekk français. wala indi historique vous avez ah, damay indi historique gu coowu binationalité wu historique laay euh, Karim Karim Meïssa du tey. du tey loolu moo a waroon tax ngeen xam ne. votre candidat ne vous xam ne. votre candidat ne vous prend pas au sérieux parce que bu bu s'il vous prenez au sérieux question boobu réglé woon na ko deux ans avant ñuy ñëw di wax waxu élection il peut pas venir jusqu'en ce moment mu lay c'est à se poser même la question de savoir est-ce que na ngi jokkoo moom parce que on a l'impression que vous êtes en train de vous battre pour quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce que vous faites je pense que waaw man dama ñëw pour waxtaan si ñun Sénégal ñun parti bi dañ ko teg ci dialogue ci waxtaan lañ ko créer lu ne dañu koy saaga suba ngoon depuis 74 ba tey bi ko Laay di teg dañ ko teg ci waxtaan ak Senghor mu nekk le premier parti d'opposition légal en Afrique indi démocratie tey moo ñu may ba Wàdd xeex na daj na lu ne benn kër la fi teg muy point ci 71 ba tey ba mu nguuru na ba wàcc yoru cent 000 francs dimbali na liggéey na ubbi na télé yi nit ñi wax leen seen xalaat wax leen seen kii ñu taaluñu ñu bëgguñu benn crise institutionnelle du suñu non non yaa ngi extrapolé génn débat bi eh, man damay ñëw ci débat kii bi léegi. Euh, benn kër la am moo tax damay ah. euh, damay ñëw ci beneen débat mooy débat boobu noonu li nga xam ne moo ñu indi tey Karim Abdoul Karim Meïssa Wade tey ñu jug ba taxaw France ñu juddoo tànnul loolu mais fii la jàngee école Fann franco arabe la tàmbalee jàngee Maris. jaar na fi demaat continuer préparatoire mais li indi Aminata Touré parce que coow loolu en 2016 elle était en bonne posture waxu ñun ñun dañ ko am à travers dama ne li fi indi loolu en 2018 le président Abdou Karim Meïssa Wade dem na déposer carte dem na déposer euh, dépôt renonciation am et la renonciation elle est volontaire et tamit dafa am en droit international privé dafa am droit international public am constitutionnaliste yi lu ñu mënti wax dafa am di binationalité et double nationalité. d' accord Karim Meïssa Wade xëyul dem signé. nous takk loolu noonu.